alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain euh, salaamaaleykum wa mbokk julliti mbokk soppe yi mbokk am di jàmm yi ñëpp ñoo xamante ni wax dëgg yàlla xew-xew bi bi mu amee ñu ngi ci sonnoon ñu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal yàlla ñaan bi nag ci xool lañ koy tibbee ndax boroom bi xam na ko waaye ala kulli haal li ñuy wax rek mooy sant ba fa sant yam ndax nag léeg-léeg nit ki xëy na mën ngaa am jubluwaay ni naa ko toroxal suufeel ko ndeko yaa ngi koy yëkkati te yëgoo ko euh, man ci lii dama cee jàngee yëkkati ko bu baree bare euh, li ma ci njëkk a gis mooy vraiment rendre hommage ak ñaanal suñu suñu justice wax dëgg yàlla ci dossier bi taxaw nañ ci taxawaayu àtte ci yoon waaw taxawaayu àtte ci yoon dëgg-dëgg tey ku taxawoon tribunal gis nga lu mel noonu te effectivement dossier bi tamit lii rek lañ ci mënoon gis mu nekk lu logique loo xamante ni kenn mënu cee teg leneen kon ñu ngi ñaanal waa justice bu baax a baax euh, ñaareel bi di ñaanal tamit sunuy avocat wax dëgg yàlla mbir mi daf maa yéem ay nit ñoo xam ne dañoo constitué wu ñëw ñëw jàppale la te yàlla tax ndax gis injustice bii nga xamante ne tegu na sa kaw ñu pare pour xeex ko loolu tamit wax dëgg yàlla maa ngi ci ñaanal suñu avocat yëpp euh, maître Babacar Ndiaye euh, maître Ablaye Tall maître Moussa Sarr waaye maître Famara Fati ñoom ñëpp ak euh, Bijeli ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal tey ku taxaw tribunal ba soxol sedd na guy guy guy guy ndax nag wax nañ fa loo xamante ne loo ala ak àtte mais génne wàllu appartenance kon lu mel noonu ñoom dama leen di ñaanal waaye may ñaanal tamit nag dëgg dëgg dëgg administration pénitentiaire wallahi yàlla xam na ni biñ ma téye ba léegi daanaka mën naa ni fa ma nekkoon moom ma dàqal sama kër ñaar rek laa manqué woon ñaar rek mooy gis sa waa kër ak téléphone mais leneen lu ko mooy lépp dañ ma koy defal maanaam dama bëgg wax li ma bëgg wax daal mooy man nekkuma woon prison nekkuma woon prison waaw nekk foo xamante ni yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi sangu ventiler tëdd ci lal nekk ci lépp noppalu ba sonn <laughs> démb loolu laa booy nee naa leen man li ma daal fi mu ne damaa noppalu ba yëg ni damaa sonn ci noflaay kon loolu sant yàlla la bu baax a baax a baax loolu moom lu mat a sant yàlla kon ñu ngi ñaanal ñëpp waaye nag mbokk yi ci biti kilifa yi ñu ngi leen di ñaana maanaam docteur Mouhamed Ahmad Lo mbokk yëpp boo limee rek nga mais taxawaay yi ñu taxaw ñoom ñëpp yëg nañ ko te loolu moo war a am nag. ndax lii bu amee dana wane ne ëllëg du ñu nangu ku ñu sacrifier parce que tamit nag dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku ne da nga am droit wax ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi waaye bëgg a teg nekk benn mbooloo rek nekk ci dara ne kenn du wax loolu moom yàlla da ko fiy jëlee incha allah te loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax pare woon naa it nag pour ne pour nekk l'agneau de sacrifice pare woon naa pour loolu leneen luñ ma ci mënoon teg doon naa ko nangu. ndax xam naa ne même buñ ma tegee leneen it ëllëg dina am ñeneen ñu gindiku loolu mat na sant yàlla maa ngi koy sant yàlla bu baax vraiment xëy na coonoog yu demee ak yéen tamit euh, di leen ñaanal bu baax a baax a baax benn naqar rek laa amoon barke de ma woo faatu dama kontaan lool euh, li ma wax mooy dama jàppoon ni daara ji man rek maa fi mën a nekk mu dox loolu la ma yàlla ne Umar loolu du dëgg ndax dama dama ko doon wax sama xel léeg ñu ànd dem uti jën wala uti dara léeg ñu ne ma baal ma dem ma leen non baal rek ma dem parce que dama jàpp ni man man rek maa mën a taxaw mbir yi sotti yàlla nag ne ma déedéet mbir mi du yow man la di nga fi jóge mbir mi gën a dox na mu daan doxee fa lillahi alhamd sama xale yi sama jirim yéeg ñu ndaw ñii ñii rek laa doon am ñu may gis billahi musuma toog xalaat alsaan musuma xalaat alsaan benn yoon waaye nag sama xale jirim yi ñoom laa doon xalaat sama xol metti bu dul loolu aw ma ko woon te falilaa alhamd ñu ngi sant yàlla bu baax bu soobee yàlla suba ak jàmm danañu rey nag noos ba ñëpp xam ne dana noos incha allah salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu allah. waaw. waaw moom jàppale bi comme li ñu kii moom euh, bitim réew mbokk yi surtout ñu ngi ñu ngi gërëm gërëm mbokk yi nekk bitim réew. surtout ñoom Ousmane Cissé ah, wa jaadilhum alhamdulillah alhamdulillah sant yàlla bu baax mbokk yëpp a taxaw ñëpp taxaw bàyyiwuma kenn kenn kenn diaspora bi kenn wuma ko ñëpp ñu ngi leen di ñaanal bu baax yal na yàlla fay leen incha allah sunna ci kam daara ji tamit moom xam naa ne moom jarul sax ma ciy wax euh, ndax sama xel dal na ci woon démb dal na ci tey maa ngi koy sant yàlla euh, li ma la laaj sànqar ne la benn métti rek laa am sama yaay leer na ma ne dina jóge sam-sam ñëw waaw loolu rek a ma ci metti woon waaye waaw ñëw ñëw na loolu rek a ma ci metti woon mais yàlla sant yàlla bu baax ala kulli xaal gëm naa ne nit du def te yàlla tax yàlla toroxal la waaw loolu moom ndax inna allaha la yudiu ajra al muhsinin yàlla nee na du ma sànq mukk-mukk jëfu ku baax dama doon toog di ñaan yàlla naan yàlla bu fekkee ni lenn ci sama jirim yi jël naa ci kenn wala ma dimbale kenn ci daara ji te yàlla tax yàlla ci loolu yàlla na nga ci taxawee teggil ma lii nga xamante ni fitna la nar a jur te bugguma mu jaare ci man te yàlla teggil nañu ko fële alhamdu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñaanal jàngalekat yeeg ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilah barakallahu mhm. may leen ko nii ñëwal ñëwal jërëjëf waaw koy mhm. euh, d'abord dañ lay remercier ndax dafa am benn taxawaay bu mu gis nga taxaw ko biir tribunal mhm. mooy bi waa ji waxee ni yow yaa wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu saxaaba musuñu julli ba pare mhm. sànni benn affaire di wax allah allah bi la ko bi laajee da nga wax waaw mu ñu ñu fa te loolu loolu nga tontu mu ne la audio bi nga xam ne moo amoon en quatre-vingt-dix-sept mu ñu tudd nga turu waa ji foofu dama la da maanaam ñun ñëpp bépp ahlu sunna ñu ngi la si remercier mm-hmm. ndax la nga tontu mm-hmm. da nga ni ko mm-hmm. boobu daf ma fekkoon ma nekk ndaw te it dama doon jàngale huis clos la woon du lu caméra nekkoon xam ne kii enregistré moo enregistré mais mënoon a yem fañ ko doon jànge moo wax ni moom nangam la woon nga wax ni loolu du bàkkaar mhm, effectivement du mhm. bàkkaar mhm. ndax Umar ibn Xataab dañuy wax ni yéeféer la woon dañ koy wax li bi mu nekkee yéeféer bi mu tuubee li mu kàngam bi mu mujjee nekk si wàllu islam foofu ñëpp dañ la ciy remercier ndax bu doon keneen mën na am taxawaay bu dëgër foofu te yow du yow kenn oustaz oustaz nekkatoo yow kenn dëgg la dëgg da nga nekk branche bu sax bu yaatu. fu la gaañee rek. Mm-hmm. ñu bari si ñun day am lu met lu met suñu. na sa njaboot gi. Mm-hmm. donc maa lay bàyyiloo xel. Mm-hmm. nga bàyyi xel ne dootoo yow kese. incha allah dafa am ñu nekk sa gànnaaw. incha allah yal na yàlla taxaw. jazakumullah xayran barakallah fiik incha allah rabbi yow. baax baax. waaw loolu tamit dafay wane rek sant yàlla bu baax ndax gis nga euh, dëgg moom ku ko bëgg a suul yaay suulu mm-hmm, mm-hmm. ndax léeg-léeg nga ñëw pour tegalin dëgg sa rax te yow yaay dugg ci biir mm-hmm. te loolu moom moo dal avocat partie civile bi lu bëri ci ñoom dañu euh, dañu dañuy euh, plaider ba pare wëlbatiku sax ñëw déey ma am na koo xam ne ne ma oustaz vraiment yow jinne nga ko ma ne ko maak yow ñu ànd nekk jinne waaw parce que yooyu tamit sant yàlla dañuy wax ba pare nga yëg nit ñi seen liggéey la ñu def rek dañ koy def mais xam nañ ne daanaka xawuñoo taxaw ci lu dëgër loolu nag vraiment sant yàlla bu baax la alhamdulilah macha allah